léegi def ko wax lépp ba mu des wax ci dañ ma boo gisee Adji teg fële viol bi di wax rapport sexuel consentement bi dafa am fu mu bëgg ñëw parce que ci jotaay yi passé tegaloon naa leen fi expliqué naa ñaari mbir yoo xam ne plan état la mhm. état li mu ci lii du lenn lu dul gàkkal deru Ousmane Sonko tilimal ko fexe ba ñu yóbbu ko ñu àtte ko moo xam day comparaître libre wala en état d' te bés bu ñu demee procès plan état bi moo doon aji Sonko dafa am euh, aji aji Sarr. Mhm. dafa am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramam. Mhm. famille ñi ngi réclamé nag nañ ko ko jox nañu muñ te tey dinañ leen delloo aji Sarr waaye bu ñu leen koy delloo vraiment sa sera trop tard. Ah, li ci kan non li ci kanam raw li bët. aji Sarr aji dafa feebar aji Sarr dafa am ay jafe-jafe yu ak yu wér yaram bi li ci kanam dina feeñ ci kanam lépp dina feeñ lépp dina leer. ndax du état psychologique ndax démb ci biir vidéo am na benn moment mi ngi naan maa ngi kontaan ci li fi xew. xam nga euh, nañ dem ba ci kanam rek lépp dina leer li tax ma waxoon ko jotaay bi passé ñëwaat fii répété waat ne Adji Sarr dafa am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaram buñ demee ba ci kanam lépp dina feeñ mais famille am nañu vigilant xool ba moom moment bañ leen koy delloo dina fekk ne c'est déjà trop tard parce que Adji Sarr tey bés bu taxawoon nar a arrière état bi da koy de ça c'est clair bés bu taxawoon ne day dellu ginnaaw teggi tuumay wala deleef leneen ak leneen duñ ko ci bàyyi loolu c'est clair li tax ñu kidnappé ko lii kidnapping la séquestration la enlèvement la détournement la parce que say parents mënuñ jot ci yow mënuñ am ci yow accès ba sa famille jóg ni dañuy dem porter ji mais nañ ko bàyyi mu dem ci ñi nga xam te ñoom ñooy loxo kenn donc loolu benn aspect la rek par ne tuuma yu bees la ak incohérence yi bon am na ci yeneen yoo xam ne relevé nañ parce que ci biir wax ji mi ngi naan capitaine Touré waroon naa wax lii ak lii ak lii mais capitaine Touré ñun ñu bi mu defee sotti dégg nañ ko nee dafa am lu tuddee PV ak carnet de déclaration carnet de déclaration yi fa la ñuy sotti lépp mais lepp dugg ci PVV, capitaine bi mu effectivement ni li de déclaration bi def ci accusation de sodomie mhm. buñ ko gendarmerie il ci plainte bi musu à l'enquête préliminaire donc ce qui s'est passé là, Adji Sarr fait que répéter ce qu'il a dit devant le juge d'instruction ci mhm. parce que déglu nañ ko ñaar yoon dossier enquête préliminaire moy gendarmerie déglu nañ ko mhm. juge d'instruction bi moy audition bi la wax ci audition bi la répéter ci gendarmerie au début musul wax sodomi sodomi Manam, euh, ñu ko donc ñi ngi soga dégg nga tu lu jëm ci bi nga Ousmane Sonko jox variation la wax ci gendarme du la waxat fi tay wax la wax du mais bon, def enquête préliminaire ñaata la donc amna variation ko euh, euh, ba ensuite bañ ko gendarmerie dafa c'était la première fois Ousmane Sonko yegg ci mais démb ci bamu mu jàkkaarloog journaliste journaliste ñatt ñaata laaj nañ ko ñaata nga seq Ousmane Sonko. Mhm. la mu tontu ñun ñep dégg nañ ko. mais c'est clair on n'invente pas des choses ay faits yu leer nañ la ñu ci table diko analyser. Mhm. démb bañ ko laajee ñaata yoon nga seq ak waa mais dafa ni sax mom xamatu ko mënatu ko compter. donc fofu peut-être euh mu tuddati thèse rapport sexuel consentement bu dé sax existé na. même lolu bu fekkente ne loolu am na. vraiment. Euh, ba paré lénen lima don doon diko léral moy lu jëm ci xam nga néna dafa tomber enceinte. Mhm. té wax na kiko enceinte enceinte. lu jëm ci wàllu viol sur dëgg c'est-à-dire que foofu mu jafandu baaxul dëgëru bu fa continuer jafandu du am dara ci dossier bi parce que viol suivi de grossesse Sénégal xam nañ nañ koy traité hmm. képp koo xam ne yaa ngi yëngatu justice xam nga li may wax dossier yi fa ñëw pour viol suivi de grossesse yépp xam nañ nu muy demee. niñ koy defee mais boobu ko nangoo reconnaître nangoo ngente xale bi dañ lay bàyyi nga dem ñibbi. mais ci grossesse boobu daf ko wax tout au début après ci biir laajaan nañ ko ko ñaari yoon mu ne du ci wax vie privée la. muy incohérence boo xamante ne tamit noté nañ ko à deux reprises. justement mais mais ba pare tamit euh, en tout état de cause rek mooy wax na ni loolee am na. léegi moo tax ma ni foofu mu jafandu baaxul dëgërul parce que viol euh, la ci jotaay yi weesu maa ngi leen doon tudd le chargé de mission présidence boobee nga xam ne dafa violé mineur bu ñu ko dénkoon ba pare dossier bi demul fenn lan moo tax ñu génnee ko si mhm. à chaque fois viol suivi de grossesse bu la ci kenn nax Sénégal léegi nag li ñuy interroger mooy est-ce que justice Sénégal